إذ ناديته بيا ولي أيا سمن لو هند ولي إبليس إذ ناديته بيا ولي دولي بإليك زكاني والجد لي تلاوة وخياما في الليالي وارفع دواما زوني بإمامي وملجئي ورئيسي وبي سرمدا تولموني والتهم لاختفائه wa maxaalin kal fiili wax wa bihi zahzi lhaadiya hanni waltasun li hanhum dawa mambutooni yaa muxiisan yuriinu kulla فك كبل الذي قد كريني ربي بالمصطفى المخفى حبيبي وتبيبي من الهدى للمين لسجي والتصفي قلبي ونور ونور ayca jërë ngeen jëf mbokk yi comme ni ñu ko ànd ak ci suba ba léegi ba tey ñu ngi fi ci Touba Darou Salaam ci ni ñu koy baaxoo di dundalee ndiki saabu bis bi yegsee muy bis bi nga xam ne ci la ñu fàttaliku maam Cheikh Anta Mbacke ba tey rek ñoo ngi ci génn kër goo xam ne mu ngi fi ci Touba Darou Salaam ñu fekk fi ay mbokki taaliba yoo xam ne ñoom itam ñoo ngi dundal bis bi comme ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee laata loolu ma nuy ziar ki nga xam ne moom laa dendal rek sëriñ Ibrahima maa ngi lay nuyu. ok jërëjëf Baye Touba maa ngi lay fay bu baax di nuyu waa Info gi yëpp di leen siyaare di rafetlu liggéey bu baax a baax a baax nag ñaan yàlla suñu borom yokk leen yokk si bi lool moom nag ay télé télé télé barke Sëñ Touba barke borom màggal gi barke bëccëgu màggal gi barke Sëñ Touba ndeysaan mu mel ne tàbbisi nañ fii ci biir kër gi fekk si la fi gis tamit liggéey bu am solo bi nga xam ne fekk nañ ko fi ñu bëggoon a xam dëgg-dëgg kër gi naka la demee ci biir Daaru Salaam ak lan mooy seen taxawaay ci bis jërëjëf Sëñ Tuuba laaj nga ma laaj bu am solo laaj bu ma neex ndaxte fii di Caareen day kër goo xamante si day am kër gu am important ci màggal Daaru Salaam ndaxte ni nga ko gisee nii boo fi duggee da nga yaakaar ne kërug sëriñ la waaye di day këru magum magum taalibe taalibe borom Daaru Salaam di taalibe boroom Njarab di kër Sëwru Saar nga xam ne ay ati ati ati ati at nii lañ koy màggale waaye di sant yàlla bu baax ndax sax màggal muy gën di yokk fii nag mooy kër Sëwru Saar mooy kër Baye Sëwru Saar. kon euh, Baye Saar bu ñu ko déggee kon manis naa jàpp ne ci mag ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ak maam Cheikh Anta ci la ñu bokk. waaw waaw bés na maa dégg ci ay kàddoom mu ne fii ba mu fi màggal maanaam fii da nga fi daa taxaw di seen ndaam voilà yenn kër moo daa tax moo daa moo daa tee nga gis jumaa ci taxaw fii nii te léegi boo dee xool fii yëpp màgg na nga xam ne kër gi bokk na si kër yi ñëkk a màggal fii waaw wax dëgg yàlla am. am ba tey itam ñu gis euh, seen taxawaay bu baax ci bés bi. ndax bi ñu gisee gis nañ ne defal ngeen fi ay ndékki yu am solo ginnaaw bi itam gis nañ ne añ yi macha allah noppi na ba yeneen koy dënale waaye ñu gis taxawaay ba am solo bi nga xam ne ngeen koy def ci bernde eh, taxaw bu baax a baax gan ñi nga xam ne ñoo jógee fu nekk di ñëw fii ci Touba Darou Salam jërëjëf Sëñ Touba comme ni nga ko waxee rek ndaxte gan moom dafa am important ci bis bi ndaxte boo boo si dee ni di ko waaj pour gan bu ñëwee bég la comme ni nga ko waxee rek biñ xëyee def nañ ko ñu ngi ñëppi defee xëy nañ wàcce ay kaamil ay alxuraan biñ ko defee duñ pare ñu ceedule xewel yi ndékki yi biñ ndékkee pare comme ni nga ko gisee nii heure bi nga fi ñëw di jël interview ñoo ngi fii ñii yaa ngi ni gis xewel yi nii ñu war koo jox gan ñi gan ñi maam Cheikh Anta yi pour ñu mën cee barke ni ñu koy defee bi ñu si paree daal jublu ci reer bi pour lépp lu ji bëggal gan yi nga xam màggal si nañ rek. ndeysaan mu doon lu am solo waaye ci màggal gi tamit saa su nekk ñu ciy gis yokkute ndax lu ci mel ne fii ci dëkk bi di Daaru Salaam daaw jàpp daaw gisoon na nañu heure bi ci lañ doon inauguré li nga xam ne moo di jumaa ji mu doonoon lu bees tàq bu yéemoon àdduna bépp waaye tey bu dël suwaat fi mel ne fekkaat nañ fi leneen lu yees ndax biñ fa demee ñoo koy yeesal mm-hmm. waaye gis nañ fa beneen plan boo xam ne tamit mm-hmm. Serigne Abo mi ngi koy eh, exposé mm-hmm. di wax ne ka bëgg a yeesalaat kër gu mag gi mu mel ne taxawaay boobu ban taxawaay ngeen ci am yéen waa Daaru Salaam xanaa di sant bu baax baax comme ni nga waxee rek Serigne Abo bi daaw daanaka ba ñu waaj màggal gi ci lañ inauguré jumaa yi daaru salaam ji mu jumaa joom te yéem na àdduna bi yëpp mu jumaa ju taaru joo xam te wax dëgg yàlla am koo gis ku ne di nga xam ne ñi dis koo liggéey biñ ci paree noppaluñ ci ñëwoon noppaluñ ak ñi mu àndal ñoo ngi ci barab bi mun sa jógee gis nga ni nga ko waxee plan bi kër si Sëriñ Mudu Maamun gi nga xam ne plan bi koo gis xam ne bis ko liggéeyee rek dina dina dina mucc ayib moom ni nga ko waxee rek chantier yi moom du jeex lu pare rek njàll ca leneen ndaxte dëkk bi moo ko laaj waaw su njaaboo moom ñu tawee ba léegi noonu la fi nekkee ànd koog taalibe yëpp nag. Mhm. sëñ kon xam naa dañ lay bàyyi rek nga sant waa waañu ak waa kër gi xam naa ne seen taxawaay ci liggéey ba am na solo bu baax. Mhm. jërëjëf Sëñ Tuubaa surtout di sant mboolem gan ñëpp nag ndaxte neex na nga xew lay gan ñi ñëw teewal la ñu sant gan ñëpp di sant nag ni nga ko waxee rek waa waañu surtout su mbokk soxna yi suñu yaay yi ak suñu bàjjen yi ak suñu mag yu jigéen yi nga xam ne màggali xasida jub si ñoom duñu am benn benn temps fi ne si waañu seere lépp sonn lool ñoom ñoo ngi leen baax a baax liggéey bépp ñoom la ñoo ngi leen di ñaanal bu baax suñu borom yokk leen ñoom it ak Seexul Xaddim kon jërëjëf suñu Ibrahima xam naa ne jamono ji suñu mbokki caameen yi moom bu ñu xësee gis ceeb bi rek daanaka du ñu ànteeg sago kon xam naa ne dañ ko weelaat incha allah ci kanam soobee أياس من الله دجى ولي إبليس إذ ناديته بيا ولي